7h34 moo jot ca zone des Niayes aywa zone des ñaay xam ngeen ne bu leen demee waxtu yi fu ci mel ne caaro yi jàpp Castor wala Gueule Tapée di nga fa gis ay soxna euh, yu nekk ca fajar yor ay seen saaku soble saaku carotte fa muy jugee mooy fi ñuy waaj a dem bokk na ci bokk fi ñu koy euh, bayee ndax foofu mbayu dër di maraîchage lu fa am solo la muy dëkk bu am taarix tur bi fan la jóge tontu li ak saxanta Anta saxanta Cheikh waaw comme euh, ni nga ko waxee rek tey de quoi est-il dañoo génn Thiès dikk fii ci. commune Daaru Xuddus nekk ci département bu Tivaouane ci dëkk bu ñuy wax fas Boye dañuy euh, dem rek laaj askan wi turu Fass Boye fan la jóge ci entrée moom xam naa da ngay gis mag ñi ñoom ñoo gën a xam histoire Fass Boy normalement fi mu soqeekoo ak bu mu toll nii. xamoo ci dara. man moom xam naa xaw ma ci dara fi nii moom mag ñi ngay mën a gis. góor gi noo tudd. Cheikh waa tey lañ la doon laaj rek histoire u dëkk bi dëkk bi euh, tur bi fu mu jógee ak Fass Boy. waaw ma nga jógee maa laaj Malick maa laaj moo leen jox tur dëkk bi tuddee ko Fass. gën a jëm Maroc 1929. Mhm. Mhm. moo ko jox mag ñi. ñu ñëw fi dëkk fi. bu fi dëkk dëkk. Ah? mbay booy moo fi jëkk ñëw. man Fatou Xool euh, yaa ngi. Fass Boy. dañ la doon laaj rek mi ngi jógee ci maam Seydi Hadj Malick maam Seydi Hadj borom dëkk bi di maam ma mbay booy bi mu ñëwee mu dalal ko mu ne ko turu dëkk bi moom moo koy ut. mu ne ko mu ne ko dëkk bi faas lay tudd sant sa sant sant booy moo waral faas booy mi ngi jógee ci maam Seydi Hadji Malick Alioune Guèye euh, dëkk fii ci Fass Boy waaw ah, dëkk ci Fass Boy góor gi dañ la doon laaj euh, turu Fass Boy dëkk bi euh, tur bi fu mu jógee tur bi daal ci maam Alaaji Malick la bàyyi koo woon bi mu fa jógee bàyyi ma mbay dem fa booba ñoo nga dëkkoon ca Fass gu jëkk ga léegi bi ñu fa jógee mu sanc foofu toxal dëkk bi fii fii mu nekk tey tudde ko Fass booy waaw moom Baye ma mbay booy moo sanc dëkk bi ay setam a ngi fi ay doomam fi mu ne jeex nañ fi waaye ay setam a ngi ci biir ñu ngi ci biir dëkk bi ñoo moom dëkk bi. lu leen ma moom El Hadj Malick waxoon. booba moom taaliba maam El Hadj woon mu xàddama woon ba mu demee ba bëgg a dëkk mu ne ko foo bëgg a dëkk mu jox ko suuf ni ko foo dem tuddee ko boo fa sancee da nga ko tuddee moo waral turu Fass booy waaw. ay booy ñoo fi ne ñu sant booy moo tax ñu tuddee ko Fass waaw ki ko sant Fass Boy la ki sant dëkk bi booy la sant ma muy maam Mambay Boy waaw fi mu ne ay sëtam ñoo fi nekk. mu dolli ci Fass bi comme moom El Hadj Malick joxoon. waaw mu mu ne boole ko muy Fass Boy waaw Fass Boy. nekkoon de quoi est-il le nom ñu ñëwoon fii ci Fass Boye di dëkk boo xamante ne mi ngi ci euh, commune bu Darou Khoudoss ci département bu euh, Tivaouane di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen numéro de quoi est-il le nom jëf Cheikh Anta waaye waroon nga ñëw war nag carotte ju rafet jeeg soble si quand même ah passe booy passe ah, booy ku ko wax wax wax wax mbayum dër waaw ah, laa njëkk a laajte nag ma ne ana lujum yi waaye tur ah. bi fi mu jógee quand même am na solo waaw <laughs> tur lay wan ni rek mag ñi euh, lépp lu ñuy def rek dafa am ci kilifteef lañ koy teg mhm. ndax góor gi mambay booy dafa nekkoon euh, taalibe Seydil Hadj Malick mhm. Seydil Hadj Malick ni ko foo mënti toxo yi tamit tur wi na nga ko tuddee Fass ndax en référence à Fès dendaleeg saw sant muy Fass Boy ndax waa Boyeen mm. ñoom ñoo sanc dëkk ba waaye mm. lañ ca naat lañ ca gën a ràññee mm. mooy mag ñi fuñ la ni sanc fa boo fa sancee di nga fa gis njëriñ mm-hmm. moo tax Fass Boy fu naat la ci wàllu mm-hmm. mbayum dër mm-hmm. ku ne xam na ni légumes yu fere moom boo ko bëggee demal Fass Boy rawatina carotte ji am na filière yu bëri yu nga xam ne ñi ngi ko fay bay peut commercialisation bi ak li nga xam ne mooy conservation légumes yi des fois moom mooy am problème mais loolu yëpp buñ ko ravitailler marché yépp ci biir Sénégal. non de dañ ci yokk rek euh, ba léegi parce que napp aussi mënuñu wax Fass boytuñu ko ndax zone de pêche la. Euh, ñu nekk ci zone des Niayes comme ni ko waxee département du Tivaouane des fois nag ñoom surtout côté pêche bi. Mm-hmm. conservation mooy problème. parce que déggoon ngeen fi jamono jël paase ay jën yu dem bay nëpp ndax problème mu foo xam parce que au moins ñoom ñu ngi fa ñu ngi fay compter entre sept cent cinquante et huit cent pirogues. Mm. yoo xamante 7h40 ñu dem RFM di fàttali ne Babacar Fall euh, tey euh, euh, dafay dalal suñu daata